نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله mbokk internet yi Sans Limites ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan si ànd bi ngeen ànd ak ñun xam ngeen ni démb dañoo yeewoo ak tiis ak naxar ginnaaw bu ñu génnee bi ñu yëgee génnuk àddina El Hadj Moustapha Guèye di président de imams et oulémas du Sénégal moom mi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko ci wàllu euh, lépp di liggéey jëm ci lu jëmale kanam euh, diine bi nekkoon na fi nga xamante ni mooy RTS mais nekkoon na fi nga xamante ni moom mooy euh, Walfadjri moom nag xam ngeen ni dafa amoon tawat bu ko tëraloon daanaka ay at yu mujj yi daf doon tawat Euh, looloo waral mu doon faral di dem France di faju ji ba ci xibaar yu mujj yi démb euh, dix euh, vingt jotee jàpp vingt trois heures si la ñuy xibaar ni suñu borom daal dina koy jël ñu ngi fii nag tableau bii ngeen di gis di monument bi monument bi la ñu tuddee la ñu ko dippee moom El Hadj Moustapha Guèye jumaa ji nekk sama ginnaaw mooy jumaa bi nga xamante ni mooy jumaa yi Moustapha Guèye fii la dëkk fii ci caaro Caaroy kaw ñu koy wax sax usine ndox tey ñu fas yéene dem ci kër gi waxtaan ak famille bi xibaar yi nga xamante mën nañ leen ko wax mooy moom jamono bi nag ñëwagul di dañuy dem jubali ci kër ga dem waxtaan ak njaboot gi dem a jël ay témoignages euh, Babacar la dem xool ci biir. moom la ñuy continuer bu fi jógee ay ndigalam la ñuy continuer bu fi nekkee ay ndigalam lañuy ñuy dama bëgg ñëpp xamee ko nii dañuy jàng kaamil bu ñu paree ñu ñaan ñu yeewi ñëpp actuellement nii président Macky moo jël lépp en charge. consulat France bi moom moo yor document yi ñoom ñooy wax kañ lañ koy envoyé fii ci Sénégal bu ñëwee bu soobee yàlla bu wàccee dinañ ko indi fii ba ci kër gu mag gi euh, balaa ñu kaa yóbbu Fuuta incha allah foofu lañ koy rob na ko ñëpp yëgee noonu bu ñu leen yeewee ku ci nekk na dem moom la nga xam ne laa la daan wax rek moom laay wax nee nit du am dëj ni ñu ñëw ku ci nekk toog di waxtaan jëmale suba ngay togg di yàq loolu da daan bañ ci dëj yëpp te da daan tere même bu dul dëjëm buñ ko wooyee mu am kàddu loolu la daan wax donc bu fi newul it moom it dëjëm loolu lañ koy waxal amul ñetti fan amul juróom-ñetti fan amul ñeen fukki guddi lu mu bëggul woon duñ ko def waaw yéen ñëpp gisal ngeen ko ko ñi nekkoon ak moom xamal nañ ko ko moom fulla ji ak fayda ji loolu lañ ko ci xamee te diine ji lii la wax donc loolu la ñuy wax na ko ñëpp déggee noonu bis bu ñu xamee kañ lay koor bi di ñëw bu sooba yàlla ñëpp dinañ ko yëg su boobaa dinañ ko dëjal fii ci kër gi incha allah yóbbu rob ko waaye tey bu ñu jàngee kaamil yeewi nañu ñëpp kuy ñëw nag di jaale da nga ñëw dugg jaale nga génn dem soxla wuñu kenn moo tax duñ fi bâche bugg ko duñ ko def man la euh, famille bi yëpp jox kàddu te lii laay wax te lii laay continuer du ma du ma ci changé dara fu la jëj nekkoon ci moom mi ngi fi ba tey te moom mooy continuer ci kër gi te ñun ñëpp juba nañ ci ci ndigalu sama grand frère mooy kenn laa am ku ma mag muy Cheikh Ibrahima ci góor ñi te jël na kàddu gi jox ma ko te dinaa ko doxalee noonu bu soobee yàlla ak yonent bi suñu kilifa yi aussi magam a ngi nii toog ñoom loolu lañ ko xamal te ñoom it wax nañ li nga xam ne moom la dénkaane woon Moustapha Ndaw amul kenn koo xam ne ne gën na ko xam Baye Gueye amul kenn ku ko gën a jege dem na ba nga xam ne dañuy wax ne sax moo moo gën a xam Baye Gueye boppam donc nañ ko jàppee noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw xanaa ma waxal leen ci dara rek ndax kilifa gi moom li ma ci mën a wax jël ci bés bi euh, alhamdulilah rabil aalamiina euh, ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ne euh, moo sant ne waxtu na amee. tiis dañu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax loolu li muy tekki mooy yàlla dañ koo delloo ak gëddëm loolu li muy tekki mooy yàlla lim la jox moo moom waaye lam jëlit moo ko moom imaam alaji Mustapha Gueye yàlla moo na ko joxoon yàlla moo ko jëlaat kon nag moo jël lam joxe woon kon waa loo xam ne mooy eh, li war ci dun taraf ci ñun mooy lu delloo yàlla ak gëddëm sant ko moo tax ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ba pare door wax nag eh, eh, alhamdulilahi rabil alamin aji Moustapha <coughs> dama daan wax na kuy taxaw ci suuf maa lu ko gën xam kuy taxaw ci suuf moo topp ci kii kii sax maa ko ko gën xam ndax man daf ma yar moo doon sama mag fu ne jaanan fa lu ne moo tax li ma xam ci moom mënu ma ko wax ci bis ay ay minute attanu ko. mi nga xam ne ñëpp xam nañu ko ci taxawaayam ci diine lislaam jottali ko jottali xam-xam loolu la fi nekkoon nekke woon bokk ci war warasatul anbiya ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yonent yi man mii di wax nag dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo taatane xam-xam ci keppaaram mooy fii nu toog nii ci këram man depuis 1995 laa ñëw commencé jàng ci moom jàng ci moom muqaddimatul izziya ba pare nag dugg ci wàllu naxwu luxa jàng ci moom téerey naxwu yëpp yi nga xam ne dex na ko jàng ci réew mi ajuroomiye ba alfiyatu ibnu malik ba balaaxa ak fiqul maliki ak al adab maqamatul xariri yooyu yëpp noo ngi ko toog naa ci kanamam lu jege ñaar fukki at jël ci moom xam-xam waaye ku bëggee ni moom xam-xam ku fonke ni moom xam-xam jafe naa gis parce que moom joxe si xam-xam jaral na ko fu mu nekk ci dëkk bi su tàkkusaan jotee lu mu doon def bàyyi na ko dal di ñëw fii xalaat seetul nag benn ndongo moo ñëw wala ñaar wala ñett parce que moom dafa ñu wax ne sëñ daara ba doon jàngal da doon wax ne taalu euh, ba sëriñ sëñ sëñ sëriñ na nekk mbalka nay fees rek nay am ndox nag wu ñëw naan dal di dem waaye moom na am nay fees rek mbalka sëriñ mbalka la war a nekk moom nay fees te moom loolu la gëmoon dal di ciy nekk ba nga xam ne dara du dox digganteem ak loolu moom li ñu naan tukki taw tawat ñetti taa yooyu kese moom moo doon tax du jàngale tukki taw tawat ñetti taa moo doon tax góor gi du nekk fii di jàngale lool rek mu ko ma xam-xam ñoroon na ko ñoroon na ko lool ak lu mu doon ñàkk-ñàkk jot waaye moom xam-xam daf ko boole woon ci dundam a xamul woon it noppalu parce que doon nañu wax ne suñ daara ba leen doon jàng def nañ wax na umhu kalimata rahati fii qaamusi hayatika waaw ndax yow moom bul jàpp ne àdduna di nga fi nopp lu mukk moom moo tax moom noonu la doon dundee nekk na ki nga xam ne yàlla mayoon na ko dag ci wàllu xam-xam te li mu xam lépp yàlla mayoon na ko itam mu mën koo jottali ba ki nga xam koo xam ne tey kàddoom àgg na ci yow rek dangay xam doo laaj kii kan la dangay xam ne Cheikh mu Gueye ko kon ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla ko yàlla sotti yërmandeem ak njéegalam yéegal ko ci àjjana ya nga xam ne moom moo gën a kawe boole ko yonent yi ak nabiyin ak suhadaay ak saalihin wa hasuna ulaika rafiqa allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim maswahu waj'alil jannata ma'wahu waj'alhu ma'a nabiyin wa siddiqin wa suhadaay wa saalihin wa hasuna ulaika rafiqa wasalaamu aleykum wa rahmatullah ndax tiis la goo xam ne ne ku ne xam ne góor gi moom eh, bi muy wax yàlla rek xam boobu daanaka kenn waxagul boobu benn télé rek am ci réew mi muy RTS benn rajo rek am ci réew mi muy RTS te boobu ba léegi noppiwul nag di wax ñoo leen di sant di leen gërëm ci seen taawaay. ndax moom dafa amoon feebar bu ko tëraloon lu yàgg wala. waaw amoon na tawat amoon na tawat ci at yu mét yu mujj yi waaye moom dafa di koo xam ne ne wax dëgg yàlla euh, daa jàmbaare lool ndax yarug daara ndax moom dañu ko daan wax bi ñuy nekk xale ba waxee mu ne daara rek wala armée mu ne góor moom. na nga jaar daale rek moo tax ay doomam ñi ci jaarul daara yëpp dem nañu armée ñi ci dem armée xëy na aussi ñoo jaarul daara waaye noonu la donc euh, li ko tëraloon mag ci la ndax euh, koo xam ne ne ne vert la ñuy wax dem ba am quatre-vingt et quelque ans donc génération li ci des bëreetul ndax euh, ku ne xam ne ne espérance de vie bi léegi dafa wàññeeku donc pratiquement li nga xam ne laa ci mën a wax moom mooy woppoon na mu loon ko ñu yóbbuwoon ko tugal euh, mu ñëwoon wax dëgg yàlla tane bu baax a baax après nag euh, mu laat ko ñu waat ko man mii di wax ak yow ça trois jours bi ma jógee ci moom man samedi laa fa jógee euh, samedi laa ñëw dimanche lundi démb waaw man maay doomam yu mag du ma taawam ndax am na doom bu tudd Cheikh Ibrahima Niass waaye daanaka Euh, moom ci boppam man la jox cër googu nga xam ne ne maa topp ci moom ci góor neew ma fi nag moo tax ñu bëri duñ ma gis na euh, bitim réew laay dund plus de vingt ans liggéey naa ci administration sénégalaise mais sama xarit la woon daal moom. qualité yi bokk ci amut ab noonu bajut kenn du mere kenn bu yëgee ne njaay mere na ko sax na fexe ba xoo ko ba jubóog moom. bu yëgee ne xam na ko ko xaw a toog moom dootu am jàmm nit la woon koo xam ne mën naa wax de nit bañ na ko waaye moom bu sa bañ ci ñëpp la boot tax bañ ma waxee ne gaañu na ma ne jirim de ci wolof buñ ko waxee mooy ko sa baay dee te mësoor agoo waaye Moustapha Gueye de bàyyi na jirim yoo xam ne ñoo ko mag bàyyi na jirim yoo xam ne ñoo ko mag wala magu leen ndax bu xëyaat ca biroom ba day mel ni borom xaalis boo xam ne gars yi dañ koy ràng mu di leen jox rek ñi ay ay facture courant ñi indi ay facture ndox ñi indi dañ may bëgg a lu yaas muy génne rek yoonam ne ko ci bu xam yow yaay kan su ko defee ah, bu nekk ak ñoom ci loolu léegi. Baye Gueye ku ne xam na ne ne xolam moo ma gën a marke koo xam ne ne ñëpp la bëgg. jikko yonent bi laa koy wax ne ne moom laa amee woon maanaam Baye Gueye munoo gis ku mu bañ wala koo xam ne ne dinga nga ne kii neexoo ko maanaam te day dafa dafa dafa tabe man bi may nekk xale sax dama daan foog ne danaan luxus dama ko daan wax ne ko Baye Gueye yow day dugal ci loxo bi di joxe di dugal ci loxo bi di joxe ba mu jeex mu dugalaat ci beneen poche di joxe moom loolu la ko yàlla bindee tabe moom laay wax nen ne dañuy wax ne ne ci doomam yi am nañu ko ci jël sax maanaam kenn mënu ko jël ndax njabootam yëpp bu ñu boolee mooy doon Baye Gueye mais li ma gën a marqué moom mooy tabe ak baax maanaam moom mooy kiyam ñëpp dañu foog nen ne Baye dafa bëri fulla ndax li muy wax ci tere bi waaye boo toogoon ak moom nga xam ne taalibe la day wax ngay ree rek fu mu toog da ngay wax ngay ree rek ndax taalibe la loolu la xam waaw. fi ñuy daanale rek mooy koor bi kañ ngeen ci jot. waaw pour le moment. donc comme euh, ñun njaboot gi euh, dañu am grand frère bu nekk foofu mu ngi tudd Jibi Guèye moom nga xam ne ne moom moo nekkoon ak moom maa ngi coordonné ak moom waaye tamit damay wax ne dañuy remercier le président Macky Sall euh, ci li nga xam ne def na ko ndax bi mu ko yëgee gis nañ ko ci Twitter mu jaale ko mooy benn ñaar dafa woo consulat bi consul bi ak ambassadeur bi ñu taxawu ko foofu xam nañ ne c'est une autorité sénégalaise ndax Baye Gueye du du du du Baye Gueye yu ñeseen yi rek Baye Gueye du Baye Gueye yu Fuuta Baye Gueye du Baye Gueye yu Caaroy waaye Baye Gueye yu Sénégal la donc le président Macky Sall xamee na ko noonu woote ne nañu jël toutes les dispositions indi corps bi ci ni mu gën a gaawee pour le moment ñoo ngi xaar le consul euh, mu ngi toppatoo le papiers administratifs incha allah bu fekkee ne xam nañ ci dara peut-être dans la journée wala fii ak euh, euh, suba incha allah dinañ ko confirmer waaye pour le moment président Macky Sall jël na disposition yëpp pour ñu indi corps bi parce que c'était une autorité parce que c'était le président des imams et oulémas du Sénégal. عن ربي فارض